xasida yi rek lan mën xam sëriñ ndax xasida la goo xam dafay mel ni Sëñ Blaay jamono ji ñu toll dafa am ñu bare bare bare bare ñoo xam dañ ko yittewoo di ko def di ci def ab lim waaw ndax waxoon nga ko keroog mm-hmm. euh, tënkub xasida gi rek mm-hmm. mawaahibun naafia mm-hmm. fii madaa'ihi saafia lépp lu sëriñ Tuubaa am mi ngi ko jëlee nee na ci tàgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. lu sëriñ Tuubaa am nee na ci tàgg yonent bi la ko jëlee mm-hmm. muy xasida goo xam ne ni gu bari njariñ la mm-hmm. di xasida ak ubbiku di xasida ak kaaraange waaye di xasida ak mucc lan nga ñu tënkalaat ci xasida gi bala ñoo tàmbalewaat ci muskil li saakin waaw xasida gi de euh, dégg naa ci ñu maandu ñu ni dégg nañ ji ku tedd gi sëñ Tuubaa mi ko taalif mu wax nii bu ñépp saxoon ci di ko jàng mhm. sunu boroom di taw ay xéewalam ci seen kaw diir bi ñu toogee di ko jàng mhm. bu ñépp saxoon ci di ko jàng ñuy tuur euh, taw xéewal ci seen kaw fañ koy jànge mhm. te dootu fa jóg dégg naa tam ci sëriñ Saalix radiyallahu anhu mu wax ni sëñ Tuubaa waxoon na ni ñu ne ko ma mawaax yi bu de ñu ngi koy jàng waaye dañ koy yàq rek mu ni fuñ koy yàqe sax kenn du fa yàqoo moom xasida gi moom xasida gi fi ñu koy jàngee sax kenn du fa yàqoo donte dañ ko fa yàq sax te mënuñu koo respecté niñ ko bindee. Mhm. kenn du fa yàqu. Mhm. kon nag fuñ koy defaree kenn mënta kenn mënta xam. Mhm. fan la tollu ci ci tuyaaba. Euh, ba tey sëriñ bi wax na ni. ma waaxi mawaahibu naafiya ak jazbul qulub ak am amdaax nee na ñetti fas lañu yoo xam ni. gawar bu ko war. te wàccoo ko dinañu daw ak yow ba diggu àjjana ñu jëmbeel la fa te dootoo fa génn. xasida mm-hmm. ak mawaahibu naafi mm-hmm. jazbul xulóob mm-hmm. ak muqaddamatul baax mu ni képp kuy gawar war ci ñetti fas yooyu te bañ koo wàcc ñetti fas yi dinañ daw ak yow ba diggu àjjana ñu sànni la ca biir doo fa génn ca ku leen taqoo ku leen taqoo kon mawaahibu li ci nekk am na ñu àgg si ni sax bu ñëpp saxoon ci di ko jàng kon kenn dootul wax mbirum décor wala mbirum ñàkk wala ñir ñàkk xéewal waaye li li ñu koy bàyyi di eh, ñam fale ñam fale sax tax loolu di am mhm. waaye dañ bu ñëpp saxoon ci di jàng mawaahibu naafi mhm. ñëpp di am xéewal mu leen di tawee fu nekk ci penkook ki soow mhm. kon xasida xéewal la te bu ñu seetee itam bayit yi ni mu toll di 166 bayit day dëppoog li mu laa ilaha illallah te laa ilaha illallah sëñ xaamidul ci la yàlla dëxañ lépp mooy baat bi gën bu doomu aadama di génn ci làmmeñam ndax boo nee laa ilaha mooy dàq nga lépp lu dul yàlla mhm. yàlla rek a fi nekk mhm. lu dut yàlla rek bu yàlla la mhm. yàllaa ko amal boo nee nag laa ilaha illa allaahu mooy yàlla rek mooy buur bi nga xam ni jaamu ko dina jur njariñ ñàkk koo jaamu di jur lor ku dut yàlla nekku fi yàlla rek a fi nekk dàq nga lépp boobu baat nag lim ba la sëñ Tuubaa jël adat ba tënk ko lu toll ni loolu ci ay bëyit defaat ko mat ko ci yanantu bi alayhi salaatu wasalaam nga xam da koo jël même lim bu toll noonu. Mhm. moom def ko matxu. Mhm. di ko tagg yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Mhm. ba pare ci biir xasida gi mu lahu usiru. waaw waaw. lahu usiru mooy def dafay dafay dafay junj rek. waaw dafay junj rek waaw day junj ci biir xasida waaye du jaar ci turu yonent bi. waaw ba xasida gi mat sëkk. waaw loolu nag. kon day wane rek. bu naafi njariñ gi ci nekk. ci nekk nga xam ne tey. limu laa ilaaha illallah. moom la sëñ Tuubaa tënkee 166 bayit Mm-hmm. tàgg lépp yenant bi alayhi salaatu wasalaam te mm-hmm. nanguwut a jaar ci tur wi ngir mm-hmm. wormaal gi mu ko wormaal ak fonk gi mu ko fonk kem ni ko sunu borom fonke te wormaal bi ci topp tam mooy xasida xéewal la ñaare kenn du sax ci mawaaxi bu di ko jàng di jàmbat ak ñàkk waaw kenn du sax ci di ko jàng di jàmbat ne daa ñàkk faawu yàlla may la ay xéewal xéewal nag daa yaatu buñ ko teg sax ci xaalis kese waaye ndimbalu yàlla taw féexi sunu borom. Mm. jàmmam lépp daa dugg ci biir xéewal yàlla. Mm-hmm. kon ma waax yi bu naa fi xasida xéewal la ku ci sax rek dinga am xéewal àdduna mm-hmm. mm-hmm. dinga ko am àllaaxira te sëriñ bi wax na ci biir ay waxiin yu ko nuru. buy dem ci yanant bi naan ko yow yaay fekk ku ku ku ñàkk nga woomalal ko. yaay fekk ku ñëpp xeeboon nga nga kàttanal ko ba ñëpp uh, faale ko. yaay fekk koo xam ni dafa meloon ne ko damm nga jàng ko. yooyu yëpp kon day wane ni xasida gi képp ku taxoog moom. bu fekkee dangaa ñàkkoon di nga woomal bu fekkee dañ laa xeeboon dinañ mujj di la naw bu fekkee da ngaa amoon yu yàqu dina mujj defaru ci yi ma tawféexi Mawaahibu Naafi' kon xasida njariñ la xasida xéewal la xasida tawféex la xasida la goo xam daal feexul Xadim nee bu ñépp saxee ci di ko jàng sunu borom sax ci di leen tuur ay xéewalam ci penk ak ci soow mhm. waaw dëgg la euh, jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye kon yaakaar naa ne euh, mën nañu daal di dugg nag ci yàggale xasida gi xam nga xasida gi li ci gën a neex euh, sëñ Ablaay mooy teggini bayit yi waaw xam nga fii ka zahabi hmm. fii ka iyaabi bi laqtiraabi hmm. lakkantimaa yi hmm. sifa suduuri diyaa uduuri badrul buduuri baadi diyaa yi dafa am ay xeeti ay xeeti ay xeeti bayit yoo xam ne ni hmm. da ngay xam pas-pasu sëriñ bi hmm. ak li ko suñu borom di may fa mu hmm. toll ci tawxiidam eh, ma bàyyi la nga yegg lee ci mushkin li saakin fa lañ tolloon waaw dañu mushkin li saakin nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ni mooy jeexal jàmbat ci képp ko amoon lu muy jàmbat chaque chaque in mooy firi jàmbatkat koo xam ne nga am benn problème problème bi tere laa nelaw nga koy jàmbat foo toll naan nu may def ba sama problème bi jóge fi muskin nag mooy koo xam ni problème lu mu rëy rëy bu bu ñëwee ci yow nga teggi problème ba waaw mu ne ko yanant bi mooy muskin li chakin mooy koo xam day dindi jàmbat ñeel ku ko doon jàmbat si problème mm-hmm. bisrun li baakin mu ni mbégte la ñeel képp ko doon jooy waaw saa boo amee lu la metti ba ngay jooy say rongoñ ji génn mhm. boo dajee ak bu yeboo nga far xam ni mbégte koy remplacé mhm. da ngay far di muuñ mhm. moo tax mu ni bisrun mbégte la li baakin ñeel koo xam ni aji jooy la mu ni musrin li xaakin xaak mooy firi nettalikat waaw boo demee sax ci arabisants yi dëgg haut-parleurs yi ñuy teg nu mu tudd dictaphone yi. xaatim la tudd ci arab. waaw dictaphone ndax ñaare dañ koy enregistré dara mu la koy nettaliwaat nga koy déglu. léegi nag musghin li xaakim mooy aji xerawlu la ñeel ku ñëw am problème di ko nettali. yonent bi dafa civilisé. soo amee la ñëw ci moom di wax ak moom. du la gëdd du la dog du la xañ kanamam. dafa am écoute te tekk di la déglu. sëñ Hamidou ñi ëpp xam-xam ci àdduna. ñoo gën a mën a déglu nit. waaw nit saa boo ko dogee rek yàq nga doon wax mën naam xam-xam doon la feeñu mhm. nga dog ko mu fàtte lim doon wax la ñuy wax capacité d'écoute waaw capacité d'écoute mhm. dafa am benn philosophe bu mag bu wax ni mhm. yàlla may na ma ñaari nopp may ma benn gémmiñ kon li ma ci war a jànge mooy nopp lu muy jariñ mooy déglu gémmiñ li muy jariñ mooy wax su ma yàlla joxee ci waxukaay benn jox ma ci déggukaay ñaar ndax may jàngal ni kon sama dégloo war a ëpp sama wax waaw li tax lii mu ëppal ko mhm. sama déglu moo war a ëpp samay wax mhm. yanant bi nag koo mën a doon boo ñëwee di ko wax mhm. moom dafa am capacité d'écoute dañ tuubaa ni musrin aji xerawlu la mi tekk di la may nopp li xaakin ñeel ku ñëwoon di ko wax problème di ko nettali ndax kooku rek wa zinni yi waaye tamit ba tey musqin zinni daa yi la dafay itam xerawlu koo xam daa ñëw di ko woo waaw bokk teg ñi nga xam ne nga ñëw di leen woo ñu du mooyu la léeg-léeg nga gis kilifa naw ko lool. Mhm. jug am ci moom yaakaar. Mhm. dem di ko seeti woo ko mu daal lay rusloo. waaw da lay jànni ba nga xam ne su dee gor nga. Mhm. dootoo waxateeg moom ci àdduna. waaw loolu yaatu la. nga am loo yaakaar ci moom dem wuti ko. mu dummóoyu la rusloo la rusloo koo xam ni dootoo sawarati wax waxam. yonent bi nag melut noonu. moom dafay xeralu képp ku mën a ñëw di wax ak moom. du xool sa mbubb du xool sa dayo du xool fi nga toll du xool sa ñàkk alal. du xool sa ñàkk xam-xam day xeralu diglu ba nga àggal mhm. boo ko mënee saafara mu saafara la ko ci saasi mhm. su fekkee jàppadiwu mu la demal ba ëllëg nga del si noonu mhm. la yonent bi daan comporté woo ak ku koy wootam day xeralu diglu la wasin ni daay waaye mun jin li saalik la woon tamit képp koo xam dangaa ngaa jug bëgg a sóobu ci yoonu islaam am nga yoon woo xam ne boo ci jaaree rek mu àggale la waaw am nga yoon woo xam ni boo ci tegee rek àgg bu dee saalik nga da ngaa sóobu tegee ci tege ci yoon wala yóbbu mhm. sëñ Bàmba ne mun jin li saalik la woon mhm. man jan tam li naa si képp koo xam ni da am diine mhm. boo jaaree ci moom mën naa déyanteeg yow ba musal la ba nga mucc ci moom moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaali xawaalik la woon xalak mooy firi lëndëm waaw ah, ay lëndëm mooy zulmu léegi nag jaali xawaalik la woon da daan wiññi lëndëm léegi-léegi nit am lëndëmu xol am lu leerul ci moom boo seetee Moustapha da koy dindi ba lépp leer ci yow mhm. kon jaali xawaalik la woon mhm. an si ci ca ñaragal yàlla di waxtandi ko tereem mhm. suñ jaaree ci yanante bi rek gis yoon xun mu faqiir la woon tam moom laa la wax léegi nit day ñàkk lool yorut dara dem seeti Moustapha far am alal lool mu teg la ci yoon nga far géeju am alal lool kon day fekk ku pauvre yorul dara mu def la un vrai riche nga am alal lool waaye tamit yëmu ca jabru kasiir la woon day fekk ko damm mu jàng ko waaw loolu mooy koo xam ni tey problème àdduna wutal na ko ay bor mhm. bari na ay bor ba ñépp di ko daw mhm. wala boog mu am déception ci àddunaam ba tey ji ñépp ni c'est fini de ci ci xaru la jëm bu seetee Moustapha da koy réparé lépp ba mu bokkaat ci nit ñi mhm. wala mu fekk koo xam ne daa waroon a sànk ba ñëpp wan ko ginnaaw mu defaraat ko ba ñëpp di ko xemme ni sëñ Tuubaa daan def nga day fekk koo xam ne ku ñëpp xeeboon ay cosaanam mhm. mu fal ko ba ñëpp faale ko mook borom mhm. kon jabru kasiir la woon ku mu fekk itam nga daggatoo amatoo benn espoir mhm. yeneen bi dalay jàng ba léegi ñëpp di la yaakaar yow foofu waaw surtout xaqiir la woon tam day fekk koo xam ne ku xeebu la woon ngool mu xeeboo xeebu amut dara yenentu bi yëkkati ko jox ko mbooloo jox ko teraanga bi ñëpp di ko wuti waaye baaxi wiqaa i la woon da gis ko aju ci moom mu lay mu lay wutal di la taamul ak kaaraange moo lay wutal ak wattandiku ba doo tàbbi ci lu bon waxuwal jali yu mu ni nag moom yonent bi ku màgg la woon ku màgg la woon boo nee jàkk personnalité am xool ko rek xam ni ku màgg la ko yàlla defoon waxuwal xafi nit la woon tam koo xam ni ku nëbbu ay mbir la mhm. nit mën ngaa màgg ba par doo ko wane mhm. ooyo fay tax da mel ni ku nëbbu say mbir wax mhm. wan naj yi ku daan déyanteeg yàlla la ah, fu mu toll déyanteeg kan li zil baqaa yi ñeel borom des gi yàlla mi fi dul jóge bi fi ñëpp jóge mooy zil baqaa mooy borom des gi bu ñëpp faatoo laxul xitaabu sëñ Tuubaa ni ñeel na ko sama waxante ki mel noonu nag ci melo yi mu doon lim lépp mu ne moom laay waxal la xoo ñeel na man sëñ Tuubaa sama problème duma ko diis kenn ku dul Moustapha. lëxul jawaabu ñeel na ko tam tontu ga. ñeel na ko tontu ga. lëxul sawaabu ñeel na ko njub ga njub ci mustafaa la nekk. maaridaa yi àndaaleeg ngërëm la. lëxul buróoru ñeel na ko topp yàlla gu rafet. lëxul suróoru ñeel na ko mbégte sunu borom. mu ni talqaahu dina dajeeg moom xóoru xóorul ayni mhm. jigéenu xóorul ni mooy jigéen ñañu yàlla dig ci aljana mhm. dinañ dajeeg Moustapha ñoom ñëpp baadal qadaa yi ginnaaw bu dee ñëwee mhm. lawoo xitaab bii sëñ Tuubaa ni ñeel na ko sama wàqante moom laay waxal ci xasida gi baada mataa bii ginnaaw sama tuub kon sëñ Tuubaa ngi yóbbu ñëpp ci ñu tuubal yàlla képp kuy jàng xasida gi rek mhm. war nga nekk kuy tuub foo toll mhm. ndax nee maa ngi waxanteeg Moustapha waaye nag ñeel na ko sama tuub mhm. waaw min kulli aabi ci lépp luy ayib lépp luy ayib maal madaa yi ànd ak la wéyoon lépp ci ay tooñ ak yu warul maa ngi koy tuub yarant boobu nag mu ni ko laka xawaariq ñeel na la ay xar baax yow yarant bi xar nga baax ba tàyyi def nga lu kenn mës def laka xawaariq min zil xar baax yi nga def nag yow yarantu bi yaa ngi ko jëlee ci yàlla mi moom mbindee fi waaw kenn mayu ko yàlla mi sàkk mbindee fi moom leen ci nga jëlee sa xar baax yi mu ni nag sa xar baax yooyu mhm. lay satli li saabiq mhm. mësuta ñeel kenn ku fi jiitu woon amul ku mës a ñëw ci àdduna def li nga def ca ña la jiitu woon ci mboolem ndaw yàlla yi mhm. wala lijaa yi du caaginu kuy ñëwaat sa ginnaaw yow li nga am te def ko yow yarantu bi ña la jiitu woon kenn indiw ko ñu ñëwaat sa ginnaaw kenn du ko indi min xan siraafu say an yu aafu aman baax dal tijaay mu ni bokk na ci xar baax yooyu ak soppikuk mbir moo xam ni dañuy day dañ koy ragat nit di ragal mbir naan dina ma lor di ragal mbir di ko moytu bëggoon ko ci jàmmal dajeeg yow yanantu bi mujj mbir mooma soppiku complètement far nekk lu neex ci moom mhm. baadal tijaay ginnaaw bu mu wéeroo ci yow nag Mm-hmm. day mujj mbir ma far soppeeku. Mm-hmm. mu ne xayaral baraayaa. Mm-hmm. yarantu bi yow maa ngi lay woo. yaay ngeen gi mindeef. zubtal balaayaa. yow yaa repoussé. balaa yépp nattu yi. lisil xataayaa ñeel ci ko amoon ay tooñ ak ay ñaawteef yu bari yaa koy repoussé rumta najaa yi yow yaa sàkku yow yarantu bi sama mucc man Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mu ne ko kon antal karimu yow yarantu bi maa ngi giñ ne yow yaay ko tedd ki anaal ah, xadiimu man Serigne Touba maay liggéeykat bi. Mhm. maa féete woo nekk ci naaj bi dina liggéeyal. yow mhm. nekkal ci kër gi ndax yow yaay ko tedd ki mhm. man daal naa nekk sa liggéeykat. ni ko yàlla fayewaat maam Cheikh Rafal ni waat Serigne Touba nekkal rek ci kër gi ma ne ci naaj bi. loolu la waxoon yanantu bi. Anta yow yanantu bi. alkariimu xaata xaatapanteeg moom yaay aji tedd ji yow. ana man Serigne Bamba nag alxadiimu maay mindaan bi maay liggéeykat bi. udiimu dëhëran dëhëran udiimu dinaa saxal giiru dund. fii ka ci yow yonent bi sanaa yi samaw tagg dinaa saxal ay tàgg yu rafet di la ko tagg sama giiru dund yow rek laay woy dootuma woy keneen yow yaay sama géer yow rek laay woy ni ko rumtam rumtum ti daaxa sàkku naa im ti ngir tàgg rek kan yonent bi maa ngi sàkku aw tàgg ci moom yooti falaaxa tagg woo xam ni dafay maye réussite nooflaay yàgg fifti daa woo xam ni dafay fekk gàcce maal anaayi àndaaleeg coona inni man cheikhul xaddim bi mat xii ci tagg yi ma lay tagg yow yanant bi aayantu rib xii ci laa jàkkaarloog sama bénéfice sama tonaw ci tagg gi ma doon tagg dem naa ba gis li ma yàlla fay ci tagg bi ba fay ma bonus jàkkaarloo naag bonus boobu waaw mu ni ko xataan ci lu dog nag wan nuj xii ak sama mucc tam gis naa ko ci tagg gi ma doon tagg maal binaa yi àndaaleeg ab tabax xëy na li mu tabax muy yoonu murit wala jumaam ji mu tabax mhm. waaye nag àndaal nag ak tabax mhm. laakin waaye nag en jaztu damaa lot mhm. ndeke kon sëñ Touba li ñuy wax mu ngi tagg yenant bi yëpp nee na ba tey yëg na ni moom dafa lott ci tagg ni laakin waaye nag en jaztu damaa lott amal tamastu ca la nga xam ni doon naa ko sàkku la ma la yéene woon a tagg yi ma la yéene woon a kañ ndeke dama cee lott man sëriñ Touba ndeke lu mu wax wax wax dama cee lott moo tax mu ni lakin ajastu amal tamastu wa ma madaxtu kan nu ba laay ndax man kat wooyu ma yarantu bi comme na ko noble ya daan wooyee sax dëgg-dëgg waaw waaw man li may wooy wooy li muy bëri bëri bëri bëri wooyu gu ma comme ponkalu noble yi feneen laa jaar waaw feneen laa jaar dañu ko daan wooyee ñoom mhm. ñu ne ko lu tax wooye woo ko noonu mhm. mu ne xaara mi daa di mhm. waaw sama daa ji ma teg di ko tagg yarantu bi dafa ngiis kuy tàgg day fekk daa ji ne fi te daa ji dem na ba ngis jeex na ndax lu ma am ci daa jeexal ko ci moom xaara mi daa di xaara fois bii sama xol tam gëlëm na xol bi ma lay tàggee ak di la yéene dem naa ba gëlëm ci biir leer yi nga am yow yenante fa wax yaay kan an mat yi haadilil bu dalaa yi walif ma mën a jot li ma yéenee tagg kii nga xam ni ku jub moo la jubal dem naa ba léegi li ma la yéenee tagg amatuma daa ma ko tagge ngiis na xol bi nga xam ne moo mën a teewlu pour tàgg la tamit commencé naa gëlëm ci say leer. kon nan laay mën a tàgg ci nga xam ni tàggkat yu mag yi yëpp dañ ko doon tagg te muy ki jubal lépp nu ma koy tàgge mu ne fa kay fa ahli ana nan laay làqe sax man sañ Tuubaa poser question waaw mu poser boppam question mhm. ana man sañ Tuubaa nan laay làqe mhm. mat xan aw tagg mhm. li mux yi ki nga xam ni ku dund boo la dundal lépp ci barkeem lay dunde tawal mat xu mux yi li noqalaa yi te tagg sax nee na nekk loo xam ni. Hmm. nee na dafa joxe excuse tàgg dafay joxe excuse. Hmm. ci boroom xel yi. Hmm. ku mel ni yanant bi nee na tàgg ko sax boroom xel yi ñoo ci lot. ñu am xel dëgg-dëgg dañuy dem ba joxe excuse xam ne mootuñ koo tàgg lott nañ ci tàgg li ko war a tagg mu ne laakin waaye nag onaa di maa ngi woo. kullal ibaad yi. yépp jaamu yàlla bàyyuma kenn. ilaa imaadi ñu jëm ci kan ci kii nga xam ni mooy sama wéeruwaay. bilaa jalaa yi. ci lu àndut ak dégg nga bàyyeeti ko bante mhm. ko wàññi ko mhm. yaa ahla barri mu ni yéen waa jéeri ji mhm. yaa ahla baxri yéen waa géej gi kon woon ñépp oojoo li barri mu ni jeng leen jëm ci dégg nga aji baax ji di yanant bi baxari saxaa yi ki nga xam ni mooy géejug géejug tabe saxaa mooy firi générosité joxe rek mu ni maa il oyo bi mooy ki nga xam ni mooy far ay ayib ay sikk mubdil xuyoo bi mooy ki nga xam ni mooy feeñal ay xay bu yu nëbbu yu kenn waru a xam mu xamal la mun xil jiyoo bi mooy kiy setal ay xol si jiyóob xol bu koy firee mi na taxaay ci walif muy am ay nëx-nëx musdil di mooy kiy dëgëral ay loxo moo ci sotti xéewal ba mu dëgër këng murdil aadi mooy kiy alak ay noonu muxtil moraadi mooy kiy joxe nammeel yi nga bëgg maa raqaay àndaaleeg mu nooy nipp ci yow mu ni maaxi razail mooy kiy far ay ñaawteef mutil fadail mooy kiy joxe ay ngëneel muhyil manazil mooy kiy dundal suñu dëkkuwaay yépp mm-hmm. bandal enfant yi ginnaaw bu ràppee mm-hmm. neema alxabibu neema amul moroom alxabibu kii nga xam ni mooy soppe bi neema amul moroom alxaribu kii nga xam ni moo gën a jege yàlla neema amul moroom allabibu kii nga xam ni moom rek am xel maahil xafaa yi moom mooy ki nga xam ni moo fekk ak nëbb mu ni xamal yàlla kii mooy aar njaboot yi famille yépp kafal xitaala kii mooy dàq ak a fekk way bañ yi maxal majaala kii mooy fekk dégg nga ak jéggikaay bu jafeñ mhm. bilaari faayicul ànd ak benn laxas mhm. ax fa suróoraa kii mooy nëbbu gis nga mhm. ax fa day firi feeñal di firi rëbb ax fa kii mooy nëbbu ña nga xam ni ñoo yées ñu bon ña abdal xuyóoraa kii mooy feeñal toyaaba yaag yiw ya xaada suróoraa kii mooy wommat mbégte ya lisir rajaa yi ñeel ku ko yaakaar safa saqiima kii mooy saafara way songoŋ ya feebar nafal alima kii mooy dàq ay mettit mhm. xaadal xadima kii moo womat sëriñ tuubaa xaadim rasul mhm. ilan najaay jëme ko ci ak mucc mhm. xat fakka kablaa mu ni dëgg-dëgg dajji na jéng ya yarantu bi moo tax nu am mu ne xat dëgg-dëgg dajji na jéng yi ñu jéngoon xat bas sa fat laa mu ni ñoddi na daal di tuur tasaare ngëneel fa durru lor walla wane na ginnaaw wa naf u njariñ képp jaa dikk na ci daraja yanantu bi ñëw mu ni jaali nawaa ib dégg nga kii mooy ki nga xam moo wiññi ay nattu mub di ajaa ib kii mooy kiy feeñal ay kéemtaan naa fi ib kii mooy kiy dàq ay musiba baa di lu ay kii mooy kiy feeñal ay may musdil xuyóori kii mooy kiy sotti ay xéewal ilal xusóori jëme ko ca njénd ya baa di nusóori kii mooy kiy feeñal ay ndimbal baadil ba ay kii mooy ki feeñal taar ak pookare xaysun afaadaa kii mooy taw xéewalu yàlla boo xam ni day jariñe ku muy jariñ man istafaadaa képp koy sàkku njariñ laysun abaadaa kii mooy gaynde koo xam ni abaadaa dafay alak mhm. ay dëddëxaa yi noon ya gën a jommalaate mhm. lëxoo ñeel na ko manaaqib mhm. ay jikko dégg nga jikko yoo xam ni jikko yuñ tànn la lëxoo ñeel na ko ajaib ay kéemtaan lëxoo ñeel ko xaraa it ay xar baax yu tumuranke bilanti ay ci amul fenn fu ñu yem mu ni kii di yanantu bi daal su may wax ci kéemtaan yooyu zab yun yu kallim bokk na ca kéwél goo xam ni wax na ci wax bu leer ak yanant bi dabbun yu sallim mbëtt moo xam ni mbëtt ma nuyu na yanant bi daal di seere ak am waxoon naa ko fii ci beneen waxtaan mhm. euh, kaab nettali na ko mhm. yenant bi taxaw na di waaraate am ku ni kee lu muy wax ñu ni ko moom de nee na yàllaa ko yónni di ko saboote fekk mu nekk ab rëbb rëbb bi rayoon na mbëtt ba gàdd ko mu ni nee na yàllaa ko yónni ñu ne ko waaw mu ne xaaral ma dimbali leen ko yàlla yónni dalay jox kéemtaan bu kenn mënul yow rek yaa koy mën su fekkee yàllaa ko yónni xaaral léegi ma dimbali leen ñëw ba ci digg géew bi mu sànni mbëtt bi ci digg géew bi ni ko bul solal nit ñi comme yàllaa la yónni defal lu kenn mënta def boo fexee ba mbëtt mii ma rayoon nga dekkalaat ko mu wax ak yow nangu ne yàllaa la yónni ñëpp nangu Moustapha ni ko sànn ci diggu géew bi ma wax ak ma mu jël mbëtt mi sànni ci diggu géew bi yarant bi joxoñ mbëtt mi ne ko yaa dabb man ana yow mbëtt mi man la kan mu ne ko labbayka wa sa'dayka yaa rasulallah alayhi salaatu wasalaam loolu la sëñ Tuubaa ni dabbun yu sallim kon dem na ba mbëtt nuyu ko tayrun yu azim mu ni ak picc moo xam ni ay picc yoo xam ni dañ ko doon màggal ni ki boroom jommalaate ba sarxun tasiiru bokk na ci loolu euh, bànqaasu garab yu dox garab goo xam ne dafa dox ànd ak bànqaas yépp garab gu mag mooy ndànjaama sarxun tasiiru gu dox raysun yafuuru ak ndeena euh, taw boo xam da doon fuur màkka mës na noo madina mës na noo euh, am maral mu metti taw amul mhm. ñu ne comme yàllaa la yónni fexeel ba mu taw mhm. mu taw taw bu jéggi dayo ba ndox bi di fuur mhm. mooy raysun yafuur biirun foofu rek dañ ko euh, euh, mais biirun la mhm. biirun mhm. tafuuru ak teen boo xam da doon fuur mhm. fekk na teen bu dem ba ñiis ngàcc Moustapha tifli ci ndox ma di yol teen ba di fuur bilaa richa yi ci lu ànd ak baak richa mooy firi baak kenn jëlul baak dugal ko ci ndox mi di xëcc ndox maa fuur ba àgg ci biir nit ñi di naan mu ne gis un yaxinnu ak ëkk boo xam ni doon na xay ah. ëkk buy xay euh, ëkk boo xam ni ci mag ci Madinatul Munawwara mhm. yonent bi ñu demee ba changé minbar bi mhm. fi mu daan teg tànkam ci kaw ëkk bi mhm. keroog bi ñu taxawee benn minbar bu bees Moustapha taxaw ci ëkk bi da doon bind di jooy waaw naan ko sa tànk yii nga ma tànnal ba ma tànn tàmm ko nga xëy rek wan ma ginnaaw yow Moustapha yonent bi yoon yónni Aboubacar nañ ma indil ëkk gi ndax mu ngi jooy ba ma koy dégg loolu la sëñ ni kon gis un ëkk goo xam ne ya innu xay na lëxoo ñeel ko ya mu daal di binni jiibun till goo xam ne ya innu gaar na bi rayi i ci sàmmal sàmm ay gàtt mhm. loolu tam jar naa mhm. dafa am bis benn rëpp jàpp dee nga jàpp benn gàtt mhm. jàpp benn jàpp benn kéwél laa bëgg a di dem ak moom bëgg koo xéewloo léegi bi mu ko jàppee kéwél ga ni ko yow tee nga maa bàyyi ndax yow mu ne kéwél buy wax kéwél buy wax mu ne waaw am na lu gën a yéeme loolu erantu baa ngi woote ngeen weddi ko waaw erantu baa ngi woote ngeen weddi ko ah, waaw till sax laay wax till bii xis sa pour till la till ga daal ni ko bi ko rëbb bi di jàpp till ga pour bëgg euh, rey ko till ga ni ko bu ma lor man maa ngi yow séquñu dara mu ne ko till guy wax mu ne ko am na lu gën a yéeme loolu sax mu ne ko lan la mu ne ko yanantu feeñ na di woote te di gëmu leen ko yow mu wax ko rëbb bi rëbb bi di ah ku la wax yanantu la mu ne ko man mii la ko wax ci sama làmmeñ te warumaa wax ba nga dégg ko xam nga ne kon yanantu la te léegi liy firndeel soo ma bàyyee mën naa laa gàddeel sa sa sa sa sa jur gi maanaam sa gàtt yi mu ne ko boo ko gàrdee dinaa gëm yanant bi dem tuubi ji mu ne ko demal tuubi ji ma xaar la sa kii sa gàtt yi du ma ci lor benn mu dem léegi nag li gën a yéeme mooy till nu muy téye ay ay ay ay. ak jur ak jur. Mhm. di ko garde te mhm. ca la doxee nag xam ne yanant bi amul morom. Mhm. moo tax mu ni nag kon. la gën a yéeme mooy kon. Euh, zibun ya innu bi raay saa yi. bind na ci lan sàmm ku mu sàmmoon ay gàtt. mu ni xat xaaza faxra. mu ni dëgg-dëgg yanant bi làq na. ak pookaréew. min xiina asra. ma nga ca rañaan ga ci jamono ba nga xamee ne rañaan na. bil gis mi nag. waaw mm-hmm. fii sëñ Tuubaa da wax ak jànkat yi mm-hmm. bil gis mi mm-hmm. ci yàpp yaramam lépp a dem nee na gaa yi dañuy créé naan ay yanant bi est-ce que imagination laak gént la xalaat sëñ Tuubaa ni bil gis mi yàpp yaramam lépp a dem jëxëran ci lu fàng bilaf tiraa yi ci lu ànd ak benn duural ko mu ne ak rim woo naa kawtéef woo ak tedde bi rabbin ci borom bi nga xam ne asra rañaane na bi xibbin ci soppe bi lay mu def ko guddi li xur bi jëme ko ci ak jegeñ ci moom mhm. maal baraay ànd koo dindi ko ci lépp lu waru mhm. mu ni xat baata yasri mu fanaan di dox di rañaan mhm. mim baax di tux yi ginnaaw boo xamee ne laabal nañ ndax bi mu demee baytil maqdis ba war a yéeg dem ci yàlla yàlla dafa joxe ndigal jibril wax ko na jàpp boo fa bi dafa jàpp njàpp mu set door a yéeg kon mim baax di tux ginnaaw boo xamee ne laab la mu diima bishri muy aji taqoog mbégte fi lan bi yaay ci biir yaram bi sóora lamiini rañaane nañu ka nga xam ni nee na nee na sóora lamiini rañaanu ku wóor ka mhm. maal amiini ànd ak ku wóor ka mhm. fawxal amiini ca kaw ku wóor ka mhm. lil asfi yaay jëm ca di lay asamaaw mu ni rañaan googa nag mahat dalaalaa mu ni far na ak réeraange lan mooy rañaanu ku wóor ka yanantu bi al amin la tudd maal amini mooy yan ànd ak ku wóor ka jibril alayhi salaam al amin la yàlla moo ko wóoru di ko yónni ay kursam mhm. lan mooy faaxal amiini ca kaw ku wóor ka mhm. mooy alburaax mhm. fas wi mu waroon di rañaan jëm ci asamaan yi rañaan googa nag mu ni mahad dalaalaa far na ak réeraange abdal jalaalaa feeñal na ak mag abdal jamaala feeñal na ab taar li lat ñeel ñu ragal yàlla ñooñee mu ne xat xat damoohu mm-hmm. yenant yi lay wax de ba yenant bi rañaanee yenant yi ci des yëpp a ko a accueillir ko mm-hmm. wane ko ne yaa jiitu mm-hmm. moo tax sëñ Bàmba ni xat xat damoohu jiital nañu ko ca dëgg-dëgg is waajahoohu ba nga xamee ni dégg nga jàkkaar la ñoo yenant bi ba gis ko dañ koo jiital waxtaramoohu ñu daal di koy wormaal zawit naqaa yi ngir ñu di boroomu set wasaada fiihim yenant bi daal leen di sang ñoom ñëpp wa baana anhum mu daal di tàggoo ak ñoom mooy wa mu dog anhum walif ñoom mooy mu tàggook ñoom rek wa siina anhum mu daal di ñoŋal walif ñoom bandartiqaa yi ginnaaw bi mu yéegee mu ni neex ma amul moroom al azimu aji màgg ji neex ma ah maa ngi tëbkat ah mu ne xat aaba laylaa mm-hmm. ah, waaw mu daal di delluwaat ci génn guddi gi kon bi ñu ràññaanee ba noppi ci même guddi gi la jóge waat ci boroomam dellu màkka tam karam génn guddi war xat aaba dellu na lay lan guddi googee ngir mu di guddi xat sabba nay laa bi mu delloo mu daal di sotti ay may li ko yàlla jox xat faaxa say laa may goo xam ni féete na kaw am yol yol mooy ndox muy sotteeku te du arrêté min zil baqaa i mu jële ko ci boroom des gi fiy des bu fi ñépp jógee yàlla mu ne xat jaa bi mayri ëndaale na xéewal mayru day firi xontu lu ñuy lekk xéewal waaye fii nga xat jaa ëndaale na bi may mayri ci xéewal ñu mu ko jox li ëhlil xayri ci ñi bëgg lu baax ñi ko gëm ñi bëgg aw yiw wa mu delloo bi dayri lorga ëhlu saqaa yi ñan la ko jox ña war a texe di mu ne xaasa làq na alkamaala mat ga faaxa féete na kaw arijaala góor yàlla ya jaasa jéggi na almajaala jéggikaay yu jafe ya bil ihtimaa yi ngir tànn ko ko yàlla tànn naa la am na jalaalaa ak mag naa la am na jamaalaa ab taar mi man jugee ca buur ba nga xam ni taalaa kawe na lépp rabbi samaa yi moom mi borom asamaan akrim mu ni tudd naa kawtéef bi aalin ci aji màgg ji daraja xaami ayaal yi moom mi nga xam mooy aar sama njaboot raa i rijaal yi moom mi nga xam ni mooy sàmm góor ñi xis ni nisaa yi te nekk sanget jigéen ñi ba duñu mooy yàlla waaw mu daal teg lu mu teg waaw ni'mal azimu mu ni ni'ma kon amul moroom al mu aji màgg jooju ni'ma amul moroom al mu aji tedd ji mhm. ni'ma amul moroom al muqiimu ki nga xam moo taxawal li ruwasaa yi buur yëpp ndeke ku taxaw yaram tubee tax nga taxaw mm-hmm. mu ni kaafil xaruuri mooy aji fekk gi saytaane xaruur mooy firi saytaane iblis xuruur mm-hmm. mooy firi ay woru waaw mm-hmm. ah. daarul xuruur këru gooraakoonti waaw ah. alxaruur mooy firi saytaane ah. jàngoon nga ko ja wa xarrakum billahi alxaruur ca sóotul xadiid mu ni kaafil xaruur ca nga xam ni mooy fekk saytaane maahil xuruuri xuruur a ngoog ay woru mhm. mooy kii far di effacer ay woru mootil buruuri mooy kii maye ay mbaax ay topp yàlla mhm. bilaa nasaa yi ci lu ànd ak yeexal mhm. baani yëpp maal xuyóori àndaale suruuri mooy kii sàkku ay mbégte lil jula saa yi ñeel way jekkaaleem ya ku toog ak moom mu wutal la mbégte lëxoo ñeel na ko imtidaax yi sama tàgg baada najaax yi ginnaaw sama mucc inda sabaax yi ci samay suba wa fil masaay ak sama ngoon sama ngoon suba ak ngoon moom lay tagg kon ne mu ni salaatu sitta julli ci moom ci juróom benn weer bi mat sitta ju ànd ak tagg ko ci juróom benn weer taati dikkal na ko batta ci lu dog maati saa yi àndaaleeg di ko roy waaw kon sëñ Tuubaa juróom benn weer yi di koy julli ci yanant bi mhm. juróom benn yi mu koy tagg mu ni alayhi mhm. sàllaa yàlla dooli xéewal ci moom mhm. rabbul borom bi nga xam ne ak jàllaa moo gën a màgg lépp mhm. fa faaxa kullaa féete na kaw ñépp fit mhm. ak ci mboolem ñi ragal yàlla alayhi sallim kon sallim alayhi yow yàlla yàlla nga dolli musal ci yenant bi wa faqam te yàlla na nga màggal yàlla na nga rëyal al amra mbiram wa azim te yàlla nga màggal al ajra mbir ma yool ba fil askiyaay ca way ñaw xel ya mu dem nag ci saaba yi mooy mhm. ñaw xel yooyu la bëgg a wax mooy ñan mhm. mooy ñi daan jàppale yarant bi comme mhm. tàgg na yarant bi ba noppi wax naa la bi mu koy tàgg ci xasida gi ba agsi fii jaarul ci Muhammad dul turam jaarul ci Ahmad waaw jaarul ci Muhammad day junju rek la koo ussiiru la wax dinaa ko junj rek léegi nag comme noonu la tagge yarant bi te mu ngi bëgg a tàgg saaba yi ko gunge ñoom tam du wax Aboubacar déedéet doo ko dégg ci xasida gi du wax Omar du wax Ousmane ñoom tam da leen di junj waaw mu dem nag ci junju boobu commencé Aboubacar mu ne alal atiqi yàlla nekk ci ka nga xam ni moom lañu ñu goreel moom la ñu goreel ci sawar waaw baabi tariqi ka nga xam ni mooy bunt yoon wi mhm. Aboubacar lay wax aqil bu sooxi ka nekk boroom dëgër ga ci mhm. gëm gi mu gëm yarant bi yàlla nekk ci moom lan mhm. kullu ridaa yi bépp ngërëm mu ne alal wasiiri yàlla nekk ca kilifa ga sayfil bashiri ka nekkoon jaasit yarantu bi nga xam ni moom la yàlla jox mbég ridal xadiiri ngërëmuk yàlla miy aji dogal mujjiril xadaa yi yàlla miy dawal ndogal yépp mu ne ala diya yàlla nekk ca borom leer ya Ousmane la ci jublu aqil xayaa yi borom kersa ga xayru ridaa yi ngën gi ngërëm minzil baqaa yi tukkee ci borom des gi bu fi ñëpp jugee mu ne alal xariib yi yàlla nekk ca mbokk ma ko gën a jegeen ci mbokk kooku àlliwu na ko moom lay sil bi ka nekkoon gaynde xare ya bu xeex mhm. masaa mooy gaynde gi mhm. ridal mujj bi ngërëmu yàlla miy wuyu ku ko woo maar ah, ci xaay di ko yéegal mhm. ala saxaaba yàlla nekk ci saaba yi zawil ijaaba ñoom ñi borom wuyu yawmal kaaba ca bis ba nga xam ne mooy bisu njàqare ba yàlla nekk ñoom di def sanaa yi ngërëmu gi yàlla mi nga xam ni mooy aji màgg neema amul moroom ar rijaal yooyu góor yàlla lagum ñeen leen ma jaalu ay yu bari niiloo wa naanoo daanañu am ci yéefar yi yéefar yi di am ci ñoom waaw ah fa yaxtaloona wa yuxtaloona ñaar yëpp am daanañu rey ci yéefar yi yéefar yi rey ci ñoom moo tax mu ni niiloo daanañu am ca gaaya waaye wa naanoo daanañu am ca gaaya wa niiloo ñu am ca ñoom noonu mhm. la dem waxtal xanaay ci jamonoy coono yi ba ñuy xeex ridda samii ngërëmu aji dégg ji di yàlla mhm. alal jamii yàlla nekk ci mboolem seen ñoom ñoom ñëpp mhm. yow man xusuu ca bis ba ñuy ragal yàlla di toroxlu mhm. yow man ni daay bisub woote ba arbaabi xayri ñoom ñooy boroom yiiw ya arbaabi dayri ñee di boroom lor ya li baaxi mayri ñeel ki nga xam ni mooy sàkku xont awexti daay yi wala boog muy sàkku jalgati déglu fii nag bayit bi dafa naqaree fii yarant bi la wax ni baaxi mayri la way faw nga xaddam ko eh, safaanam yarant bi la wax ni baa li baaxi mayri yarant bi nga xam mooy sàkku ji xont xéewal ñu ko moom mu ni li arbaa bi xayri da xam ni ak yiw lañu moom di ko wane mooy di sàkkul xéewal mooy li di sàkkul fay gi waaw ah, mu mhm. ña nga xam ni nag dégg nga waaye tam li baaxi dégg nga dayri la waaw mhm. ah. mhm. dégg nga li ictidaay ñi nga xam dañoo jalgati maanaam ña jalgati lor la ñuy am ña nekk ci yiiw mu sàkku leen xéewal mu ni nag man sëriñ boobaa kon maa ngi wax ni kullun képp kenn ci saaba yooyu sujaa u jàmbaar la lëxoo ñeel na ko ittibaaw ak topp lëxoo ñeel na ko ittifaaw ak yëkkatiku wax tarifaay ca jamonoy dàggasante ko neex ma amul moroom alkumaatu ñu ñime ñooña gaynde yooyu nga xam ne ñoo ñime alkumaatu muy firi ñu ñime mm-hmm. jàmbaar yooyu mm-hmm. neex ma amul moroom alxumaatu da nga xam ne ñoo aar diine islaam mm-hmm. iddan ay amaatoo iddan amaatoo euh, rayoon nañu iddan noonu yàlla ya bi lax tifaa yi ci lu ànd ak nëbbu mu ni afawtu bihim man sëñ Tuubaa jéggal naa samay noon bihim ci seen daraja wamaa jafawtu te du ma béccëngal dégg nga bihim ci samay noon nafaytu dàq naa zawif tiraay yi ñi nga xam boroomi duural lañu muy noonu yooyu tubaab yi mu ni tanhu li xayri mu ni jublu na ci feneen fudul man aada u dayri ña nekk nooni lor ya bi usni xayri ci daraje ki nga xam ne nopp bi yiw la yanant bi lay wax yanant bi daa bokk ci turam usnu xayri daa am ñu ko doon jëw ni yanant bi benn nopp la xam na ñun ñëpp dañuy dégg kilifa diine yi sax mhm. ah diw de boo ca njëkkee wax ko rek moom yow lay dégg mhm. loolu la ñuy wax diw benn nopp la mhm. yàlla ne bu leen ko tuumaal bu dee usnu kon usnu xayrin lakkum la alxuraan tontu ni bu fekkee yenant bi benn nopp la kon nopp bi yiiw lay déglu ñeel lay déglu waaw ah, yàlla moo ko xulool foofu léegi nag ñu boole ko ci deux cent un yi yenant bi am usnu xayr loolu mooy nopp bi yiiw buy déglu yiiw sëñ Tuubaa nag loolu la wax ni kon man dey samay noon yi indiloo mm-hmm. dootuñu ma jublu te mm-hmm. maa ngi ko amee bi usna xayri mm-hmm. ci boroom nopp ba nga xam yiw lay déglu maaxi tiraa yi ka nga xam ni moo ma faral man sëriñ Tuubaa dégg nga euh, ak ak ay tooj mu ni fa wattu am rii joyal naa sama mbir li mubqi umri jox ko ki nga xam moo fi desal sama dund mhm. maa ahli badri ma àndaale ak waa ahlu badar mhm. bilam tiraay ci lu ànd ak benn werante kon sëñ Tuubaa dana ànd ak ahlu badar ci lu amul benn werante mhm. yàllaa ko fi saxal boole ko ahlu badar te loolu wax na ko ci place yu bari bokkoon naa ci waa ahlu badar maa ngi deeta li bërki démb ci benn conférence euh, sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana ci irwaa na nadim ku ci dem nee sëriñ jéeri waa daan sugu taalibe sëriñ Mm-hmm. sëñ moor Jéeri Waaraan Sug mm-hmm. dafa ñëw di julli si suba mm-hmm. gisanteeg sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana mu ne ko démb de nelawuma dara foruma bët sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana nee na ma laaj ko ne ko ah sëñ moor Jéeri lan moo la teree for bët mu ne ko man daal dafa am waa ëhlu badar waa asxaabul badar ñoo ñëwoon di ziar si sëriñ Touba bi ñu ñëwee di ko ziyaara nag dem bay ñibbi toll ci teen bi am seen wenn fas wu mar bu bëggoon ñu may ko ndox ñoom laa demoon di leen jàppal di leen wëggale ndox ni fas sax dafa xaw a alde ba fas wa sax wéq na tànkam ci pindu bi mhm. ba boo demee dafa xollee ko looloo ma teree nelaw sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana nee mhm. ma dem xoolali ko sama bopp fekk pindu teen bi bu mhm. ma gis fa lu mel ne ay tànki fas mbir mi jaaxal ma lool waaye la gën a dëggal waxam ja nee na ba yoor yoor di jot sëriñ Touba woolu ma ma dem wuyu ko sëriñ bi jox ma xasida gu mu taalib bi tudd adaaxali waaw adaaxali jox ma ko mhm. ni ma Mouhamadou Lamine ma ne ko Mbàkke mhm. mu ni xasida googu maa ko taalif ginnaaw bi fi ahlu badar ñëwee démb doon ma ziyaara mhm. ca laa xam ne kon keelam doon wax loolu la kon ahlu badar da daan jaxasoog sëriñ Tuubaa te benn wàllu yu musu ko am na boo déggee sëñ bi ci Libreville mu wax ni yasaralil mu naa la daal Libreville man xaadali maa xaaba an kulli wali yàlla yombalal na ma ci bi ma tollee ci Libreville loo xam ne benn wàlli musu ko am loolu mooy ëxlu badar di ko seet si moo tax sëñ Tuubaa ni kon ma des fi ak ëxlu badar ñu may ziyaare loolu sëñ Tuubaa amoon na inni aqulu mu teg lan inni aqulu waaw mu teg inni aqulu man sëñ Tuubaa maay wax wala yamiiru te du jeng mukk man yasuulu koo xam ne dafay jéem a songaate dégg nga lii ñeel ma mhm. maal jiraa yi àndaaleeg tooñ du ma mu kuy kuy beew mu ne mhm. yaazal jalaali mhm. yow yàlla mi boroom mag gi yaa mutaali yow mi nga xam yaa gën a kawe lépp yaa xayrawaali yow mi nga xam ne yaay ngën gi xejj bi may taxawul samay mbir ajib nangul duwaa sama woo gi wuyu ma sama ñaan gi salli na nga dolli teddange wa sallim te nga dolli mucc alal mu kallim ci nga xam ne moom ngay waxantet wa waasim foofu da koy xaddam waasim te na aar dóor ya samay kër wasun te na nga ñoŋal wi aa i sama wattu waaw sama ndab sama ndab rek moo fi di wi aa fi may def sama mbir daal nag ma ko wattu nag ma ko sangeel ba kenn du ko xam mu ne àla rasuuli yàlla nekk ci yanant bi ndaw li yàlla li baabil wusuuli kiy buntub àgg ci yàlla li nay li suuli ñeel kiy joxe laaj ahmar ruaa yi ngën ngaa aaru ak wattu muy salli dollil te teddange dawaamaa giirug dund gu sax wasit te na nga dolli salaamaa mucc waskur te na nga gërëm na nga sant xilaamaa samay xalima li ñuy bind lépp lii ñeel wa ak sama tabax bi waaw mu teg yaazal iraada yow mi boroom nammeel yàlla day am nammeel yàlla day am lu mu bëgg moo tax mu nekk boroom nameel mas naa wax ci benn waxtaan maa ngi gis ñu bari di ma saaga man leen duma leen tontu ndax seen xam-xam dafa tuuti. Mhm. waaw ma ne yàlla murit la. Mhm. la <laughs> ñu wax ma ko waaw murit mooy firi ku am iraada kuy namm dara. waaw mhm. boo jàngee sax ci ñaar fukki yi jomb ci yàlla boo demee ci tawxiid ak yi nga xam ni yàlla mënu koo ñàkk am su ko ñàkkee am nekkatut yàlla. la la ci jàng daa am iraada. waaw yàlla day am nu mu namm. loo tax ma ni murit la. kon yaasal iraada yow yàlla mi boroom na meel di am looy bëgg yaasal ifaada yow yàlla mi borom ngëneel yi njariñ yi mm-hmm. xallit nanga saxal nanga nga béyal mm-hmm. saada ak texe mm-hmm. lii ñeel ma beexti yi ànd ak nag ma cay def la ca war ma cay sonn mu ni xinni atidaa a fegalal fegal ma samay noon zit ni ixtidaa a na nga ma dollil dollil nga ma sama sama njub zit ni ixtidaa a dollil ma sama roy ci yenant bi bilaa anaay ci lu ànd ak benn coono sa fiqtifaa yi na nga sellal sama nëbbu dégg nga bilaa jafaay ci lu ànd ak béccangal tayyib na nga teeyal ansa yi sama reer tayyib na nga teeyal tam xadaa yi sama añ ansa mooy firi reer xadaa mooy firi añ sëñ bee xam lu mu ci jublu nag sama reer na teey sama añ na teey moo xam la mu ci jublu yaasal wujudi Mm-hmm. yow yàlla mi boroom mbindeef yëpp ku am yaa ko amal wala yow yàlla mi boroom am gi mm-hmm. kun na nekk mm-hmm. lii ñeel ma bi jóodi ci sa tab gi wajaal te nag ma defal di samay nelaw xujóot mooy firi nelaw fawqal adaa yi mu féete kaw jooxe ya ñay jooxe farata julli jee ka jaamu yàlla samay nelaw leen ëpp doon mu ni xëpp lii na ma may widaadaa ak cofeel xud lii na ma wommatal almuraadaa nammeel ga yaa man yow mi nga xam ne afaadaa yaay jariñ bi kiraay yi ci lu àndut ak benn jafe fu tege fu mu ne xëb lii na ma may mhm. buróoraa ay topp yàlla mhm. xinnii na nga nga nga ma fegal mhm. alxuróoraa ay woru abdan ngir ma jaam suróoraa bu ñu bégal li kulli raa i ñeel képp kuy aji gis ci sunu borom waskur na nga gërëm na sant xilaam yi samay xalima li ñuy bind wax mat na nga sa na nga gërëm kalaam yi samay wax mhm. bilaa malaam yi mhm. ci lu àndut ak yeddeel mhm. walam tiraa yi du caaginu werante saddit na nga jubal waaw fii itam saddit bu ñu ko bindee siinu muhmal amul ñetti tomb mooy firi lu jub waaw damay ba ñoo di ko saddit bi firi taral dara mettil ko waaw saddit mooy na nga jubal lisaani sama làmmiñ lu mu wax na jub ndawir na nga leeral mhm. janaani sama xol mhm. janaan tam ak jinaan bokkul jinaan ay firi ajjana janaan xol mhm. sa fi na nga sellal amaani sama kóolute wasit bara ita na nga dolli sama denc lépp lu waru zax-zax ta dayraa dàq nga lépp luy lor lii ñeel ma xutta mayraa lii wommat nga euh, yool euh, xont ba maanaam xéewale ñeel ma fal tak fi jawraa kon nag ma fegal dégg nga ak jeng waaw lii ñeel ma li man yuraa yi ci koo xam ni kon dafay jeng mm-hmm. na nga ma fegal ak jengam waaw koo mm-hmm. xam day ngistal mm-hmm. mu ni an xis ayaalii na nga xettali sama njaboot mina dalaali walif ñuy nekk ci réer kon képp ko aju ci sëñ soo réeree yow la neex waaw la ngay dimbalee sa bopp mooy fexee gëstu ji comme nee na moom ñaan na yàlla boroomam mu fegal ko njabootam ñu réer waaw wabil xalaal yi dégg wa xallit te na nga mas saxal saraa yi dégg sama riches da nga ko saxal bil xalaal yi ci lu dagan mu teg xinnii itaabaa na nga ma fegal dégg ak yeddel xudlil kitaabaa na nga ma wommatal téere ba alxuraan waqbal mataabaa na nga nangu suub gi yaa zastira yi yow mii boroom jënd lépp lu ma la doon jaay foofa nag sëñ Tuubaa daam lu mu jaayanteeg yàlla borom yu mu bàyyil boppam ni jaay naa ko dootuma ko lekk wala dootuma ko def yàlla nangul ko jënd ko loolu lay wax kon yow mi jënd lépp lu ma jaayante woon ak yow yaa xayra rabbi yow mi ngën gi borom xayri mu rabbi di ngën gi ku ma yar te yaptaqal bii mu ne ko teel nga sama xol banda ci daa yi ginnaaw boo xamee ni sàkku naa ak tablu ci yow salli Euh, xéewal wa sallim te dolli mucc mm. alal mu tammim ci yenant bi nga xam moo matal mm-hmm. lépp lu gaa yu baax yi ñëwoon ñu leen ko moo ko ñëw ki ko mottali matal mm-hmm. wa kulliya sim mooy wax sim kulliya mm. te na nga sange na nga aar sama lépp bilanti ay ci lu amut yemoo fu mu arrêté mm-hmm. daal ni allahuma yow yàlla bi xaqi wàccillaahi taala al karim ci àqi sa jëmm ji gën a tedd la te gën koo kawe te gën a màgg lépp sàlli na nga dolli tedd nge wa sallim da nga dolli mucc wa baarik te nga dollee barkelal ala sayyidina ci sunu sang bi mhm. wa naa tey sunu kilifa mhm. muhammadin te tudd muhammad mhm. wa alihi ak waa këram sax bi ak ay àndandoor wa farixu te na nga ko bégal bi hësi il manzuma ci yile tagg ma ko tagg woy yi fii kulli waxtin ci bépp waxtu wa hin ak bépp jamono abadan ba faaw wa hëpp te na may lana li naasimiha ci ki nga xam ne moo ko woy di Serigne Touba. na nga ko may. ridaaka sa ngërëm. sa ngërëm kat al akbar bi gën a màgg. fii kulli xarfin ci bépp araf buñ ci jàng. min xaa tukkee ci sama woy wi. wa xëpp te na nga may li kulli man képp koo xam ne. yaqrawuhaa jàng na xasida gii ma ko woy. na nga ko may lan saadata daare ni. texe àdduna gii nu nekk ak texe àllaaxira gënu jëm. amiin nangul ñaan. yaa rabbal aalamiin yow yàlla mi borom mi ndeefi. subhaana rabbika rabbil izzati mu ne nag tudd naa sa sell nga yow yàlla borom bi yow mi nga xam ni yaay borom tedda nge am maa si na ëppante nga ak ñu lay jéem a niral noomel wa salaamun mucc ala mursalin yàlla nekk ci mboolem koo mos a yónnu walhamdulillahi te cant ak ngërëm ñeel na yàlla mi nga xam ne rabbil alamin mooy borom mbindeef yëpp jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop Bichri bég nañ bu baax a baax ci xasida gi